bien alors daañu ñëwaat ci yow léegi dañuy wéyal rek ak professeur professeur laaj bu mujj laataa may ñëw ci. mooy dañu gis ne ay parti classiques yi fi nekkoon yu ci mel ni AFP yu ci mel ni Rewmi yu ci mel ni également euh, yeneen parti PDS gis nañu ne dafa mel ni dañu nekk en perte de vitesse au profit di yeneen mouvement wala yeneen mouvement citoyen d'ailleurs wala yeneen parti yu juddu yees ndax élection yi wane na ne ñoom ci seen bopp dañoo gën a fës que parti classique yooyu lan mooy expliquer li ne waaw loolu li ko waral président Macky Sall bi ñu ko falee dafa ne woon damay je vais réduire waxee ba opposition bi dootul tekki dara mhm. mais opposition boobu Euh, xeex bi ñu ko xeex dafay tax beneen forme opposition jóg. Mhm. voilà loolu moo moo tax aussi moo expliquer ndaw yi. Mhm. seen engagement ak seen détermination. Ah parce que boo xoolee système politique sénégalais ni muy doxee. Mhm. Euh, à peu près chaque huit ans. bu fekkente ne ki ki ñu fal président huit ans chaque huit ans. pratiquement dafay construire pouvoir personnel am. mais bu ñu weesoo huit ans rek da ngay gis ne euh, autoritarisme maanaam pouvoir di buum di buum bi askan wi daf koy dal di dàq. dàq. loolu boo xoolee ci Léopold Sédar Senghor gis nañ ko 63 ba 70 à ans mu créé waat premier ministre ginnaaw bi ñu génnee ci les événements de 1968 après daal di tijjiwaat jeu bi instauré un multipartisme limité. Mhm. avec euh, le PDS ensuite le euh, le PAI de Majmoud Diop. ak mhm. le euh, le parti conservateur bu maître Boubacar Gueye en 78. Mhm. gis nañ aussi ci Diouf bo ni muy bàyyee pouvoir bi en 80. sous Abdou Diouf aussi 81 ans. mu am crise bu grave bi après bu ñu génnee mu dal di tijji bi créer un code consensuel mhm. euh, euh, créer le haut conseil des radio télévision et cetera ak euh, ba ñu ñëw ci loneel ak yooyu ba dem si alternance bi président Wade ñëwee aussi à peu près huit ans la am mhm. ba 2008 bi opposition bi organisé boycotté élection législative yi en 2007 juin 2007 2008 mhm. nga gis ñu organiser les assises nationales commencé renverser tendance bi ak le Front Siggil Sénégal bi jur le Benno Siggil Sénégal en 2009. Mhm. ñu dal di gagné li nga xamante ne mooy ville yi gën a mag. Mhm. Euh, ci Sénégal voilà euh, le président Sall aussi pareil 2012. 2000 2020. 2020 ñu commencé contestation bi dans le cadre de la mhm. pandémie. de mars 2021 ngeen gis euh, li fi jot a xew. et puis gis nga léegi ci local yi donc système boobu même boo fekkente ne da nga da nga bayonee da nga nërmeel. parti traditionnel yi système politique sénégalais bi mooy fonctionner noonu te bu fekkente ne dañu yegg ci moment boobu euh, démo consolider démocratie euh, ubbi jeu bi mooy nekk li gën euh, ci nguur gi wante itamit ci askan bi très bien dañuy jox kàddu gi Ndeye Diagne moom it mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyoo si ma lay nuyu bu baax a baax nuyu suñu invité yi. Mhm. monsieur euh, Maurice Soudieck Dione am mbégte dala daan def fi professeur di la nuyu di la ziar. Mhm. nuyu tamit euh, monsieur Faye Gow. Mhm. di ko nuyu alors euh, ci njëlbeen bi jéem nga def lecture nan lañu ñu amee score bi ñu am Dakar surtout ci opposition bi mais man dama bëgg a xam fan la ñuy placer choix politique bu président Macky Sall defoon ci investiture yi nga xam ne juróon na coow ba mu waxoon la base ni leen dem leen ngeen toog déglu ma. waaw euh, président euh, élection euh, locale dafa nekk élection bu particulière ndax dafay fekk ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ngir ñu dem jànnoog askan wi day fekk ñoo ñooñu am lëkkaloo bu dëgër boo xam ne am nañ ko ak gox gi wala goxaan bi nga xam ne fa la ñu war a dem jongante mm-hmm. léegi bu fekkee président dafay dogal Euh, te dogal bi xëy na ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, ci base bi euh, nanguwuñ ko wala gis nañ ne xëy na am na keneen wala am na ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoom la askan wi gën a jox bopp loolu mën na indi ay jeexi jaaxa wante lu ci mun di am certes am na ay confrontation ay contradiction ci biir benn Bokk Yaakaar hmm. mais li ma gën a yaakaar man dama jàpp ne sanction la maanaam képp ku ñu teg Benno Bokk Yaakaar rek mm-hmm. dañu bëggoo won président ne kontaanuñu ci sa doxalin kontaanuñu ci sa politique. je crois que loolu moo ëpp solo ci jàngat bi ñu mën a am si élection yi. Mm-hmm. boo xoolee maa ngi ko doon wax sànq profilu maire yi ñëw c'est-à-dire parfois dañuy gis ñoo xam ne dañuy. sont très jeunes. ça veut dire que dañu bëggoon a jëlee ñi fi nekk dañ leen fi bëggoon jëlee à tout prix. Mmh. donc jàngat boobu lu am solo la donc dafay weesu li nga xamante ne mooy euh, jafe-jafe investiture yi nga xamante ne moom la Benno Bokk Yaakaar am. Mmh. mais dañu gis ne euh, benn euh, sanction bu askan wi bëgg amal joxe benn avertissement ab dànkaafu bu ñu war a jagleel nguur gi. ngir mu war ci am jàngat te jàngat bi mu ci war a am ci sama gis-gis moo di mu fexe ba Euh, dëggal démocratie bi euh, teg mbir yi ci yoon ba nga xamante ne meru askan wi dina ko mun a génne ci kuréel yi nga xam ne mooy kuréelu démocratie alors est-ce que stratégie politique finalement day paye léegi euh, ngir contrôler le pouvoir bu ñu dégloo Mahmoud Saleh li mu waxoon ni élection yi di ñëw dafa am nar am njeexital ci élection présidentielle yi ñu gis ni ay liste parallèle yoo xamante ne ni kenn comprendre woon peut-être est-ce que finalement stratégie politique yooyu ñuy faral di teg pour contrôler le pouvoir est-ce que léegi ça waaw euh, pour pour contrôler pouvoir moom à la kuli al foog mu am stratégie politique hmm. stratégie politique nag mën na dox mën na bañ a dox mais stratégie politique foog mu am li ci am solo mooy na stratégie politique yi dëppoo ak sart yi nga xam ne moo lal démocratie hmm. mais kenn mënul am sañ-sañ ne damay jël ay stratégie politique yoo xam ne damay salfaañe euh, àq ak yelleefu doomu aadama yi wala damay salfaañe sart yi nga xam ne moo tëgg pomi nga xam ne muy mooy démocratie wala nga jël dooley askan wi di ko xeexee te dooley état xajul ci kenn ndax dooley askan wi la donc boo ko jëlee di ko xeexee di dal ci kujje gi nekkatuñu ci démocratie da nga yore doole nguur gi di def lu la neex donc stratégie naam war na am mais dafay tegu ci dëgg tegu ci yoon tegu ci sart yi nga xamante ne moo tënk boo paree ci la ñu tëgg démocratie euh, wante euh, bu loolu weesoo itamit gis nañ ne euh, stratégie politique yi dafay évoluer par rapport ak contexte bi jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi moom la ñu am lañu dund ñàkk bi ak jafe-jafe yi ak itamit xaalis bi nga xamante ne xaalisu askan bi la ñu di ko yàq di ko pasar pasaree pendant ce temps nit ñaa ngi sonn di dund lu metti ci seen dundin de tous les jours alors loolu yëpp dafay indi ay jiixi jaaxa moo tax ñu ne kon ñi foog ñu sanctionné leen quel soit ki fii ñëw mais ñi foog ñu won leen ne li ngeen di doxal ànduñu ci. d'accord peut-être euh, benn question laataa ñu dem ci beneen invité bi alors tey nan nga gisee organisation scrutin bi bëri na ay rëq-rëq am na ay irrégularités mais par rapport ak surtout ci fichier bi nga xam ni opposition bi daf ko yàgg a ŋàññ te gis nañu ni ci fichier bi lañu demee élection te ñoom gis nañu victoire bi ñu am ci yenn localité yi. waaw coowul fichier moom yàgg na fi gis nga en 2007 bi euh, bi euh, opposition bi kuje gi boycotté dem ci législative juin 2007. ne du dem ci législative yi ba boycotté boo euh, organiser les assises nationales mais en 2009 ci même fichier bi la ñu demee en 2009 euh, opposition bi gagné donc kon fichier bi euh, mën nañ wax ne bonul woon donc fichier bi itamit ci la ñu demee ci la opposition bi gagné mais lan lay tekki mi ngi tekki ne kóolute dafa am solo ci diggante euh, ñi ŋànk nguur gi ak ñi euh, féete ci kujje gi te mhm. kóolute mi ngi lalu euh, ci ne bu fekkente ne dañu am ay sart yu ñu war a tëral ñu pencoo ko waxtaane ko ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne ñoo seq langue politique bi di ci jongante danañ ci ànd bu ko defee kuréel yi ñu tëral dina doon ay kuréel yu am doole. Mhm. ndax askan wi euh, daf leen di nangu. Mhm. ndax euh, ki ñu daane day xam ne dañ ko daan euh, ki daan itamit day xam ne dafa am ndam te ndam li daf ko mérité. très bien ñu ñëw ci Go Faye di président bu mouvement réaction alors Go ginnaaw ba ñu la nuyuwaatee njàngat laaj bu njëkk bi mooy sa njàngat d'abord ci élection locale yi ni mu tëddee de façon général ak surtout ca gox bi nga xam ne fa nga doon jongante muy Parcelles Assainies fi nga xamante ni nii. bëri woon na ay candidat waaye nga jël deuxième par rapport ak scrutin ba euh, sa njàngat par rapport ak loolu. effectivement <clears throat> man jàpp naa ne le constat il est clair. Mm-hmm. ñëpp gis nañ ne les populations ont sanctionné comme li ngeen doon wax léegi. Mm-hmm. léegi euh, la sanction dañ ci war a def ay jàngat ñi nga xamante ne ñoo féete si nguur bi war a comprendre exactement pourquoi la population s'est ainsi exprimée mm-hmm. parce que boo xoolee euh, Yewwi Askan Wi doo def razzia un peu partout mm-hmm. peut-être Parcelles Assainies sax lañ doon wax am na ballottage amul ballottage mais sinon partout comme je dis c'était des des scores soviétiques mm-hmm. un peu partout jeunes yi wane ne Euh, ils ont compris leur responsabilité dinañ dugal seen loxo ci gox yi. Mhm. mais aussi dinañ jéem a toog ci instance de décision yi. Mhm. donc ñun Parcelles Assainies euh, effectivement jël nañ fa deuxième ci élection yi derrière. Euh, Yewwi Askan bi mhm. mu nekk liggéey boo xamante ne war nañ ci jëlee ay jàngat. parce que ñun on a une coalition composée d'indépendants. indépendant quand je parle d' indépendant mooy moi ki nga xamante maa doon candidat bi. Mm-hmm. ak tête de liste proportionnelle bi ñun ñëpp on est on pas issu de parti politique classique. donc loolu c'est révélateur day wane ne rek léegi les mouvements citoyens les mouvements associatifs. Euh, ñu ngi commencé émerger. ñu ngi commencé émerger te mm-hmm. effectivement <coughs> il fallait un peu plus peut de temps ou bien. Mm-hmm. de nit ñi comprendre exactement le message bi ñu doon jàllale pour ñu gagner élection yi maintenant. Euh, jël deuxième ci commune bi gën a réussi presque Sénégal en termes d'électorat derrière une machine comme Yewwi Askan Wi. mais lan moo expliqué loolu day <laughs> parce que yow loolu xaw na jaaxal nit ñi de. <laughs> comment est-ce que vous êtes organisé pour pour pour en arriver là quoi parce euh, que devant Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom jëlul sax deuxième jëlul premier troisième la jël. Euh, Yewwi ñëw jël premier yow nga jël deuxième Parcelles Assainies dañoo. ni ko ni ko professeur waxee dañoo sanctionné wala liggéey bi moo ni waaw dañu sanctionné sax mais en fait euh, man man man jëluma deuxième c'est-à-dire ñun on une coalition. Mhm. sauf que suñu particularité mooy on est un groupe composé de technocrates. Mhm. d'autres personnes yoo xamante ne peut-être am na sax ñoo ma gën a xarañ. Mhm. donc ñun ñoo ku si nekk ñu am reconnaissance ci sa gox. ku si nekk sa waa gox nga jàllal leen message bi wan leen ne leen.